Euh, di la sant bu baax di la gërëm ci euh, thème bi nga def. taxte mhm. mu nekk lu ama am solo. Mhm. parce que tali yi li ñuy wax toujours rek tali yi xaatuñu mais xol yi ñoo xat. Mhm. te normalement ñi yor oto wala ñi yor jakarta war nañu mën a yaatalante seen biir. ba nga xamante ni kenn ku nekk di nga jaar fi nga war a jaar sans benn problème am ci. mais bu fekkente ne nii borom taxi bi day day xatal borom jakarta bi. war a borom jakartaa bi di xatal borom taxi bi. Mhm. loolu jëmewu leen fenn. parce que mhm. ñoom ñoo bokk tali bi ku ci nekk da nga xëy di daan sa doole di am looy wut. Mhm. li nga wut moom mooy li nga yóbbu sa kër pour suturloo ko. kon nag war nga mën a am comportement bu rafet a rafet boo xam te ne nii modèle nga war a nekk. donc loolu donc moom mooy euh, sama xalaat pour l'instant. Euh, mu nekk ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk li nga xam ne tali bi li nga wax ku nekk jël li nga xam ne moom mooy sa wërsëg euh, ndax dañuy faral di wax naan tali bi xatul xol yi ñoom ñoo xat euh, ndax te li tax tali bi xalut xol yi ñoo xat ndaxte tey boo xoolee safaru taxi bi dafa am ba Tuuba client yoo xam ne àdduna mënut a neex ba ñu jël Jakarta mm-hmm. am client yoo xam ne àdduna mënut a neex ba ñu jël taxi am client yoo xam ne àdduna mënta neex ba ñu jël li nga xam ne mooy Tata euh, li nga xam ne moom mooy taxi dañoo am seen i client bopp lii di Jakarta am seen i client bopp lii di Tata am seen i client bopp ba ci suñu borom watiir yi ba ci kalandoo yi est-ce que tamit loolu ku nekk bu ko xamee rek euh, doo doylu waaw Assane loolu ñoom lu ñu war a comprendre la mhm. comme ni nga ko waxee léegi gis nga am na ñoo xamante ne nii mhm. mënuloo fexe ba ñu jël Jakarta mhm. am na ñoo xamante ne nii paasu Tata lañu am am na ñoo xam te ni mënoo fexe ba ñu dugal a taxi. Mhm. jakarta la jël. Mhm. donc ku nekk bu ko xamee woon noonu te suñu boroom kenn ku nekk li nga war a am. Mhm. bind na ko ba noppi. moom mooy li nga war a daw ci journée bu dee 2500 la bu dee 7000 la bu dee 8000 10000 15000 yaa xam. journée boobu ala kulli la nga koy am. boo ko nortu am rek moom mooy sa oto day paan. doo am loolu moom mooy suñu boroom dogalu ko. kon kenn ku nekk war Mm-hmm. mënuloo xatal sa moroom xatal sa moroom xatal ko ba lekk wërsëga mënul nekk mm-hmm. waaw bu ko defee kon nit ñi war nañu am comportement boo xam te ne nii parce que da ngay gis même jakartaay aussi da ngay gis koo xam te ni da ngay war a doubler euh, normalement à gauche nga nga jé ngay dul doubler à droite mm-hmm. loo xam te du code te bu fekkente ni borom taximaan bàyyiwula xel bu seeree ci sa kaw lay seeree kon loolu borom jakartaay war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ñu fexee souvent boo koy def ay musiba rek lay yóbbu ci tali bi moom mooy accident yi ngay gis comme yu yu demee noonu. Mm-hmm. ca mu nekk comme ni nga ko waxee xam code di dawal kot waaye daf cee am tamit ci kaw tali bi euh, beneen genre fiiraange boo xam ne dañ ko fay nemmeeku. ndax euh, lu ci mel ni taximaan ni dañu ne ñun ñoo am droit euh, daw ci kaw tali bi Jakarta amul droit daw ci kaw tali. ñu ne tamit euh, amul droit ki nga xam ne moom mooy kalandoo daw ci kaw tali bi si ñàkk am droit yooyu ku ci nekk ne man maa am droit daw ci kaw tali bi est-ce que indul ay problème ci kaw tali bi. waaw Assane xam nga képp ku jënd sa oto. Mhm. bëgg cee daan doole pour loo dundale sa borom kër. Mhm. ci client yi nga ko mën a amee. Mhm. muy taximan bi wala muy kalandoo bi wala muy borom tataay bi wala borom jakarta bi. ki jël quatre cent cinquante mille am wala cinq cent mille am aussi jënd jakartaam. kooku liggéey moo ko tax a jóg. kon taximan bi warta mën a xañ kenn droit am ci kaw tali bi parce que ñom ñepp ñom ñoy am même pied de qualité ci tali bi mhm. kon kenn ku nekk war nga xamal lool sa morom ba nga xamantene ni di nga baye ku nekk la nga wara liggey nga liggey ko mhm. ku nekk la nga wara am ci sa wërsëg nga am ko mhm. ku nekk la nga wara comporter wo ci comportement bu rafet bu noble nga am ko parce que bu ñu bu dañ baye xel ne ay doomu adama lañ te doomu adama li ñuy sentu ci mom mom moy comportement bu rafet ba nga xam te nga wara nekk Mhm. parce que boo comporté woo yeneen comportement des fois nga gis kenn doublé la wala kenn war a jàdd signalé wul yu demee noonu mais nañu bàyyi xel bu baax a baax mhm. ndaxte mënoo daw ba mu neex rek nga bëgg a euh, client la rek nga taxaw noonu taximaan yi mhm. te souvent day am yu day am lu bare bari tali bi da daw ba si rek client la rek doo sax tala signalé nga jékki-jékki rek droité kenn ku topp sa ginnaaw mën na mën na dal sa kaw te su a bu ko tegee fuñ ko fu ñu war a teg rek duñu ñu daanu. Euh, ndax ci loolu tamit euh, boo gisee à chaque fois euh, dina indi jafe-jafe ci diggante jakarta yi ak taxi yi ndax loolu droit da koo may ñi nga xam ne moom mooy taximaan yi ndax chaque mois dañuy fay li nga xam ne moom mooy 4000 francs bien sûr droit d'extension hein, lañ koy wax fu la neex mën nga taxaw jël li nga xam ne moom mooy client. Euh, comme sànq yaa ngi koy wax waaye am na ci booy yoo xam ne ñoom ñoo xamul li nga xam ne moom mooy euh, code de la route euh, ndax dangay nekk nit koo xam ne tey sa yaay day teggi benn nat rek jëndal la jakarta nga yëg ci kaw tali bi wala nga jekki ba si yàgg sa jëndal la jakarta rek nga yëg ci kaw tali bi xamoo li nga mooy code de la route. waaw Assane gis nga jakarta normalement képp ku koy dawal da nga war a am permis mhm. normalement la ci code de la route. Mhm. parce que su ma juubul vélo rek moo dul am permis mhm. ak yenn li ñuy wax moom mobilette yi mhm. euh, si rek yu demee noonu mhm. mais boo xasee ba yor loo nga xamante ni day dugal ay vitesse di génne da nga war a am permis muy jakartamay ni donc kon loolu ñoom war nañ ko topp parce que fan yee passé rek man maa ngi doon toppatoo sama permis gis naa fa ay jakartamaan meen yu bëree bëri yoo nga xam te ni ñu ngi commencé di am permis di yeewu ci loolu te loolu moom mooy yoon nit ki loo dawal lu ne bëgguñu respecté la police maanaam jox la gëdd gi la war a jox mais da nga war a am permis da war a am da a grise da war a am kii nu mu euh, assurance. Mhm. yooyu da ko war a da wut. loolu wutaloo kenn sa bopp nga ko war a sa bopp nga mhm. parce que day tax police du la mënal dara boo defee boo defee tamit euh, yàlla tere choc. Mhm. yu demee noonu mais mais assurance da lay fay da ngay topp assurance fay la. bu boobaa kenn du la mënal taximan du la ëpp droit ci kaw tali bi. tata du la ëpp droit ci kaw tali bi. même ku yor particulier Euh, droit boobu ci kaw tali bi tamit euh, comme ni ñuy faral di nemmeeku tamit yenn choc yi nga xam ne ñu ngi koy gis ci kaw tali bi euh, muy dox ci diggante li nga xam ne moom mooy jakartamaan yi ak taximaan yi lu bëri tamit ba Touba mën nañ ko gis ci li nga xam ne tamit moom mooy yoon yu bon ndax da ngay gis benn kamb goo xam ne wala tali boo xam ne toj na tey taximan bi di moytu ba dal ci kaw jakarta bi wala jakarta bi di moytu ba dal ci kaw euh, taximan bi mhm. euh, yoon yu bëri yoo xam ne tamit yàqu na tamit day indi lu waral choc yi ci kaw tali bi de waaw loolu Assane nag euh, loolu problème mu nu mu tuddati maire yi laa koy demee noonu waaw parce que loolu ñoom seen wàll la xam nga taximaan yi mënuñu wàcc jëlal seen bopp ay ciment wala ay gadron di ko defal seen bopp tali bi mhm. parce wax nga ko léegi chaque fin mois ñoom kon am nañu droit di daw ci ay tali yu baax mm-hmm. comme ñi ngi fay seen xaalis mm-hmm. xanaa kay ñi jox seen xaalis ñoom ñoo war a xam ni kat ñii ñi ngi joxe seen xaalis mm-hmm. ne ñii li ñuy joxe nañ ci jël defaral leen fi ñuy jaar yoon yi ñuy jaar muy tali bi parce bu ñu fàtte ne tamit tali bu baaxul mën na indi choc lu bëree bëri parce que booy moytu comme ni nga ko waxee léegi mën na mën na indi choc bu fekkee ne daw nga it te gisuloo kàmb gi teeluloo ko gis sa oto dugg a a dévier mën kon yooyu mu doon loo xam te ni euh, lu maire bi war a bàyyi xel tamit ba nga xam te ni dañoo war a topp tali bi tali tali yi ne Thiès yëpp. Mm-hmm. xool fu pax am ñu defar ko. loolu moom mm-hmm. loolu moom mooy importance te dina tax dina sàmmal euh, borom oto yi seen oto mu mu maanaam mu yàgg. Mm-hmm. ñu ba ñu bañ ca am paan yu bari. te it dina éviter choc yu bari. waaw il ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax. dina éviter choc yu bari tamit en même temps tamit euh, sunu sunu sunu force de l'ordre de sécurité yi tamit ñu gën a vee ci li nga xam ne moom mooy tali bi rawatina sunu mbokk jakartaamaan yi. Euh, da nga ciy gis tamit guddi gi tamit ñoom dañuy daw sans lumière tamit. waaw Assane xam nga lumière moom bu demee ba ñuy def ko ci luy daw. Mhm. boo ko éliminer maanaam loolu waratu la daw. Mhm. parce que pour guddi la defe naa du mhm. la. donc boo dawee ba guddi jot war ngaa mën a taal sa lumière nga xool yow fi ngay jaar fan la. Mm-hmm. mais bu fekkente ni te li ngay wax ni dafa ama ah, am na mm-hmm. jakarta yu bari dañoo éliminer seen seen faar yi. Mm-hmm. Euh, maanaam di taal signal. yaa ngi dégg. te signal moo mën du pour du pour leeral signal. pour nga war a jàdd fenn la signal la wala yu demee noonu. mais bu fekkee dem nga ba éliminer maanaam say say lumière rek. moom mooy def nga infraction boo xam te ni yow ñi éliminer seen lumière ñu delloo ko ci. Mhm. te gën koo leeral sax bu gënee mën a leer parce que seen seen kaaraange la ñoom ba nga xamante ni nañu mën a xam fi ñuy jaar te lu nekk seen kanam danañ ko mën a gis Assane. Euh, mu nekk kaaraange ndaxte tamit boo xoolee à chaque fois euh, grand bi euh, li nga xam ne moom mooy tali bi dañ ciy nemmeeku lu nekk comme sànq yaa ngi koy wax da ngay gis koo xam ne yaayam day teggi natt 400. por cantar porque me gusta a mí nada me La música es